الحمد لله البديع الأكرم وسلامه أبدا على ما الكرم الحمد لله البديع waaye ñoom bu ñuy nattal keneen koo xam ne di ñoom du mat maanaam day wàññiku suñu borom ne xanaa ñooñu dañoo njortu ne ëllëg duñu dajeeg man dañoo jàpp ne dekki amul ëllëg de dinañ daje ak man te lépp loo xam ne ni defoon nañ ko ci loolu ay àq ci ay sew-sew yoo xam ne bàyyi nañ ko buñ dajeeg man dinañ ko layoo ak man waaye dinañ dinañ fay àq jooju seeni borom. kon rëbb na ñi nga xamne ni bu ñuy natal seen lu ñuy nat lu ma sekk waaye bu ñuy natal keneen du mat day manqué ñu suñu borom tawara ko taala tëggut ne leen waaye dig na leen mbugal moo xam ne ni mbugal mu met la dina xanaa ñoom dañoo njort ne duñu daje ak man te bis boobu ala kulli xaal dina ñëw te kenn ku ci ne lépp loo mas def bis dina ñëw sunu borom tabaraka wa taala audit la waaye laaj la ko te korut bàyyi xel ne lépp loo def nit wala lépp loo waxal nit wala nga def kooku bis dina ñëw mu ñu ñu ñu ñu ñu la ko jàpp ne loolu du am ah, defa lu la neex waaye dina ñëw ndax borom bi tabaraka wa taala na ci alquran ne kenn ku ci ne dinaa wéet ak yow ba nga jàpp ne yow dong laa bind di la laaj ba nga jàpp ne man xanaa borom bi tabaraka wa taala xanaa man dong la bind fekk déedéet ak maandoom moo waral loolu ثم من ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم ويوم يقوم الناس لرب العالمين لوح كون لي قرب باي خيل ما جاب ني نات اك بيس في ادنا رك لا يام يوم الخيام am na fa wàll su rëy loo xam ne rek la borom bi lay doon sa diggante ak moom kon képp koo xam ne luwaay lu di def na ci bàyyi xel yàlla tabaraka wa taala xam ne mi ngi jàkkaarlu ak moom waaye mi ngi koy gis ndax laa taaxuzuhu sinatu wala naw xan fene ne yaalamu qainata al ayuni wa ma tufi sudur lépp lu def rek xam na ko alam yaalam bi anna allaha yara motax abi hurayra radiyallahu anhu waxne yunus yonent sallallahu alayhi wa sallam aqam ndax mom moy borom àq ji sañ wax bayil leen ko mu wax mu len xol len li amel ko laaj koko ko jox ko bañu xolé ñu xoolee lim ko ameel ñu ne ko sahaba yi ne ko li fi nekk de ak li nga amel waji li fi nekk mo fokk loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jox leen ki gën ci mooy ki nga xam ne ki gën a rafet fay àq moo gën ci yéen ki nga xam ne nii bu yorelu nit bor bu koy fay da koy fay fayin bi gën a mat waaye du ci wàññi dara bu ëppul du yées nee na moo gën ci yéen ngir mi jàngale ne euh, nit koo yoreel bor buy fayiku la nga ko ameel ginnaaw ba mu lay nattal lu mat sëkk la jox kon boo koy jox it na ko jox lu mat sëkk waaye dañoo tere ba mu lay jox mu jox la lu mat ba nga koy fay fay ga naaxis mooy fay ga manqué lool loolu dañ koy mat ko dañ koy moytu bu baax a baax a baax moo tax Moustapha sallallahu alayhi wa sallam jaabir nettali na ne dégg na muy ñaanal ki nga xam ne nii daa rafet aw jëflantil mooy ci wàllum jënd jaay ku lewet la neex a jëflanteel koo xam ne bu la yoreele wala nga yoreel ko ak lewet gu mat sëkk loo koy booleel waaye ak neex deret loo koy booleel yéen bi sallallahu alayhi wasallam na kooku yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla defal xéewal gu yaatu mu ngi koy ñaanal kooku même sax bu bu ko nit yorelee bor bu ko waree fay dina ko muñal wala mu jox ko délai boo xam ne bu fa yeggee dina may fay dina mën a fay bor boobu loolu bokk na ci ci jikko yu yonent bi sallallahu alayhi waaye mu jàngal ko aw xeetam ngir kenn ku ci ne di ci bàyyi xel bu baax moo tax abi fatana wax ne ne dégg na bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ëllëg yowmal xiyaam ku bëgg sunu borom tabaraka wa taala jéggal la nga bañ bokk ci ci tis tis yi wala ci metit yi nga xam ne ni mi ngi xew ëllëg yowmal xiyaam bu la nit yoreelee bor wala nga ameel ko bor la gën mooy bu la wóoree ne ki nga ko seqal ku loxoom jotul ginnaawam la mu wóor la ne kii bu lebee du gaaw a fay yow mi nga xam ne ni yaa ko lebal dañuy bëgg nga bañ koo takk taxawal ne ko tay tay, tay dang may fay bor ni bëgg nga jox ko délai bu gudd bo xamné bu fa yeggee dina mëna fay wala nga bàyyi ko ba mu mëna fay fay wala sax nga ne ko jéggal naara la wala nga xol la ci ëpp nga baal ko ko la ci dess mo mën ko fay yonent sallallahu alayhi wasallam nee dal ku bëgg njaqari yowal khiyam ak tisi ku ci bëgg mucc bu la nit amélé bor bo xamné ne na fay ko dina jafe nang ko ko jéggal wala ngeen ko baal naa la ko li ci ëpp baal naa la ko wala nga jox ko dele boo xam ne bu fu yeggee dina ko mën a fay moo tax amoon na benn commerçant boo xam ne benn waay boo xam ne daa jëndanteeg ak jaay ak nit ñi su masaana lebal nit ñi ay bor su yebalee ki nga xam ne nii mooy fayiku bori da wax ne da wax ne ko boo demee ci ki ngay fayiku tax na mu di ko daw moo tax ibnu masud radiallahu anhu wa arda dafa nettali ne amoon na waajoo xam ne ci jamono yu njëkk ya koo xam ne sunu borom tabaraka wa taala da ko xisaab amul dara lu baax lu dul danaa jaxasoog nit ñi ci wàllum jënd ak jaay su mosaana di fay ku bori dem di fay ko nit ñi yebal ay xale pour ñu dem fay ku bor yooyu da leen di wax ne ci koo leen dem rek laaj ko amul rek baal leen jàllal ci keneen ne ko jégal naa la sama borom wax ne ko lii ngay def man sa borom maal ci gën kon jégal naa la bis ni jégal naa la amoon ci waajoo xam ne it ku yàlla dénkoon alal la mu nekkoon borom alal lool ba mu faatoo sunu borom laaj ko ne ko yow alal ji ma la joxoon ana loo ci doon jëf ana loo ci def dañu bàyyi xel ne lu sa borom dénk rek ëllëg dina la laaj ana nak nga nga ci doon taxawee donc sunu borom ku mu laaj rek di nga tont boo tontuwul it al yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun say cër ñooy wax ba mu ko laajee loolu mu ne ko yow sama borom de alal jëng ma joxoon daan naa ci commerce mooy daan naa ci jënd ak jaay ak nit ñi waaye ci ku dem ku ma lebal mu war maa fay fekkee yàlla da koo dénk alal comme mën na dara dinaa ko defal ak yombal ba mu mën naa fay waaye duma ko takku du ko taxawal pour mu fay waaye ci ku ma demee koo xam ne amul ku ñàkk la te leb na am mënul fay dama koy jéggal wala ma xool la ci ëpp ca ba ma baal ko ko te yàlla tax te loolu ko ku ko def bàyyil xel ne borom bi tabaaraka wa taala dina la jéggal waaye dina la baal ndax danga taxaw doomu aadama waaye képp koo xam ne daa amee bor boo xam ne fay ko jafe ne ko lool yow nga jéggal ko ko te yàlla tax wala nga xool la ëpp ca bor ba nga jéggal ko ko ëllëg yowmal xiyaamatul akbar borom bi tabaaraka wa taala nee na benn kera fa am mooy rot xaros ëllëg yowmal xiyaam borom bi tabaaraka wa taala dina la keral ci ker googu te foofu kenn ku ci ne soxla na ker ron keram googu képp koo xam ne yaa ngi jéggale te yàlla tax waaye di xool sa digganteeg sa borom ñi nga xam ne nii yoral neen la wala nga yoral leen boo leen mën jéggal te yàlla tax wala nga may leen ko wala nga xool la ëpp ca bor ba nga defal leen ko ak njéggal te la wóor ne borom bi tabaraka wa taala dina la jéggal waaye ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek ak maanu ci kiy jaay wala kiy jënd mu ragal yàlla ci li nga xam ne nii moom lay nat wala moom lay peese mu bañ di ko buy peesal boppam muy dem ba mat sëkk waaye buy peesal ak jàmbur mu di ko cof du mat loolu it yonent bi sallallahu wa sallam tere nañu ko ndax doon na jëndanteeg abi jabir benn gilem waaye ba muy fay njëg la da ko peese ba mu daan mu doog a balance boobu kon rek mi ngi jàngale ne képp koo xam ne nii day yëngu ci yooyu mu bañ di jël yëfi jàmbur loo xam ne moomu ko nga xam ne lépp loo jël te muy àqi jàmbur na nga xam ne ëllëg yawmal xiyaamatul akbar borom bi tabaraka wa taala dina la laaj waaye dinga ko ko fay benn saxaaba yi bu ñuy wax Zuwayd ibnu Xays nee na mos naa ànd ak damoon jënd ay tise ci xajar ba ñu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa gis ko daal di bëgg ci tise yooyu ba ñu waxaalee ba juboo ci prix pour mu war fay yonent bi sallallahu alayhi daa dem ba ci nat ba ci ki nga xam ne mooy peese mu ne ko ragalal yàlla sa peese mbii na nga peese ba mu daanu nga dog maa kon loolu it jàngale la bu rëy boo xam ne ci ñu yëngu ci wàllum natt walla ñu yëngu ci wàllum peese nañuy bàyyi xel loolu bu baax ndax saa boo ko defee am loo ci bàyyi ak lay jur sa déenteeg sa moroom moomu te bu la ko looy fay la ëllëg te loolu lu mat a bàyyi xel la xam na ne natt ak peese yamul fii ci àdduna lépp loo def fii ëllëg di nga ko rendre compte sa borom tabaraka wa taala kon ñu wàcce foofu sunu kàddu wa aqiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi albadi